par des crimes en cascade. Par la suite, je voulais aussi m'associer au message de Cheikh Djei... au message de compassion, euh, pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels, des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie, confortés, aidés et renforcés et assistés par des milices et des nervis. Euh, intervention aussi ñaari premier roi bi moy li jëm ci justice muy dossier bi nga xamné lu ëpp ñaari at parce que mars 2021 la Tambalé won tay ñu ngi ci juin 2023 mo tenir en haleine le débat public mais mo tere Sénégal ñëpp kenn mënu am ci am bu weesoo lolu nak dina revenir ci ay éléments de réponse <coughs> par rapport ak plainte bi nga xamné sénégalais ñu décider. décidé ay autorités yo xamné dafa am nu ñu comporté woo nous dénk leen doole ñu jël ci ci torturer ci saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle. En ce qui concerne le dossier judiciaire nga xam ne moo frappé Sénégal depuis mars 2021 Nous dañu gis koo xam censé garder les sceaux qui sont les symboles de la République le ministre de la Justice tàmm nañu ci moom mu nekk dans avec une mauvaise foi elle est manifeste elle est expresse Dieu manipuler l'opinion nationale et internationale mais y a une limite parce que da a jël loi bi à sa guise et selon la commande du chef mais cette fois-ci il faut atteindre le niveau de xamante ne yegg ci paroxysme bi maanaam ci njomboxtal premièrement il ngay dugg ci loo xam sa prérogative parce que ministre de la justice bi ñu la nommé dafa am décret bo xamné mars 2023 la bo organisé, mo ministère de la justice wax la yow lam moy say attribution ministre de la justice nekkul moy wax magistrat yi li ñu a ak liñ warta atté nekkul mom moy commenter une décision de justice même su que une décision définitive la parce que su boobaa dafay immixé wu en tant que qui représentait la chancellerie beaucoup d'exécutifs qui bi pouvoir judiciaire mais le pire moi, décision elle n'est pas encore définitive parce qu'il y a des appels la partie civile a fait appel Ndeye l'une des co-accusés a fait appel donc c'est une décision pendante Il y a da ngay commenter décision di wax fan lañ ko donc loolu a influencé la juridiction d'appel Le pire c'est néna da fay dugg ci esprit wu juge bi manam mom moy wax juge bo xamné ne na ba paré mais ba légui décision bi disponible gul té décision nak ñetti wàll la qualité bi nga xamné greffier bi mokay def wax ñan ño àtte mbir mi composition tribunal bi nan la identité wu parti ak seeni avocat ak kañ nañ saisir juge bi ak ak fal lañ jaar su paree juge bi daal di def motif maanaam fan la teg décision am après mu indi dispositif li génn keroog dispositif la c'est un prononcé ne lii la ñu àtte mais juge bi tant que génneegul décision bi statuer moo tax même kuy def appel bu demoon def ko ci cour d'appel greffier bu cour d'appel dafay demander greffier bu nekk ci tribunal de grande instance ne ko indil ma décision bi avocat yi suñuy plaider en appel procureur buy def réquisitoire en appel moom procureur général lepp ci décision boobu lañ koy baser donc ki nga xamné nak mom mo moo rendre décision waxagul fan la ko tek ministre bi génn ne moom mooy wax sénégalais yi décision bi fan lañ ko tek ma koy laaj nak est-ce que lolu tekki wul né décision bi mom la et que juge bi dafa ñëw rek lire ko su fekkee lolu la na am courage wax ko sénégalais yi bi ci tegu moy deuxième niveau bi nak moy wax loolu wàllu waxut mais inventé une décision de justice C'est-à-dire qu'il ci revenir ben par ben. dañu ko dégg mu ordonnance de renvoi bi nga doyen des juges pour renvoyer Mirmi devant la chambre criminelle Une ordonnance elle est inédite dans les annales judiciaires Nous avons ci ordonnance bi dañu renvoyer Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour pour corruption de la jeunesse Nous lolu ci liñ ko renvoyer won la bokk ne dem lire, ngeen comme jang ngeen am dispositif ordonnance vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière criminelle pour y être jugé conformément à la loi pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième. Fait en notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023. fille da ngeen corruption de la jeunesse de tailleur constitutionnel il est désormais passé à faussaire pénal de tailleur constitutionnel il est devenu falsificateur d'une décision de justice. Parce que ça, c'est une décision de justice. Et c'est très grave. Nous déggaat ko mu juge juge bi dafa disqualifier seetalul Ousmane Sonko ci viol dafa disqualifier pour corruption de la jeunesse d'abord Je dinaa revenir la disqualification parce que c'est une hérésie nous mu une hérésie disqualification nous dañu am avons infraction mais nous avons des circonstances aggravantes Madame, nous avons dañu lay mais bi en réunion parce que circonstance aggravante avec escalade da un un mur wala avec de locomotion da nga utiliser ou moto c'est des circonstances aggravantes avons nous mur wala bi ngay sàcc naam timis 19 heures moo jot mais timis jotagul guddeegul ñu daal di disqualifié en vol simple loolu mooy disqualification mais toppee nit viol muy yàqtaan ne dafa forcer nit tourner fële ne la da nga def corruption à la jeunesse da ngaa ger ay nit pour yàq leen ça n'a rien à voir kon c'est pas la même infraction mais moom nee na disqualification ni mu ko firee moom l'agrégé en droit mooy juge bi nee na séq nañu ñoom ñaar waaye nag séq boobu moom tuddeewu ko viol li nga ko tuddee mooy danga koo nax te fekk xale la woon loolu nag ñuy wax sénégalais yi ne du dëgg c'est un pur mensonge parce que loolu la tudd bu ngeen demee tribunal ngeen def archive yi décision de justice yi ñu génnee yëpp yoo xam dafa am disqualification c'est la même motivation dañuy naan attendu que les faits par exemple de vol en réunion initialement reproché à X s'analyse plutôt en vol simple s'analyse plutôt ça veut tout simplement dire que li avons la c'est que nous tout le fri, ko de wan te après en quoi corruption de la jeunesse amna. li tax signifie conjonction sexuelle maanaam ñaan cirque parce que dañuy leeral pour sénégalais yi dañuy dem parce que dañu bëgg article 324 du code pénal alinéa 2 sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au, en dessous de l'âge de 21 ans. Ça veut dire que atteinte aux mœurs moi délit mais soit fait atteinte aux mœurs donc soit da la favoriser wala nga exciter wala nga faciliter débauche muy ben wala nga corrompre jeunesse bi donc le délit corruption de la jeunesse n'est nek infraction autonome motax décision de justice bi jappé len ko ben torsion bo xamné nit ñi ci poubelle dañ koy parce que du infraction moyen la pour nga def ben infraction élément constitutif la kon nak mën nga utiliser wala nga exciter ay jeunes pour ñu nek ci débauche tay bu la que nga tabax sa kër dugal fa ay xalé yu góor ak yu jigen tiaxan tu as favorisé tu as excité tu as facilité la débauche ils ont moins de 21 ans mais est-ce que yow da nga sik ak ñom relation bu dee góor nga ay jigen ya fa nek bu dee jigéen nga ay góor ya fa nek kon bu bu ñu corruption de la jeunesse moy conjonction sexuelle encore il a déformé la loi mais il a falsifié une décision de justice il ne il ne peut plus être digne de garder les sceaux qui sont les symboles de la République parce que le département de la justice, c'est un département de souveraineté. C'est extrêmement important. Benen bi mooy mu ñëw di encore une fois waxaat loo qui beaucoup de ku qui, xam ne jàng nga xam li yoon di doxee wala sénégalais boo xam am nga xel di xalaat da nga war a ndax daf comme Contimance, le mun nañu dem jël ko à tout moment mais que président Ousmane Sonko Pour nous demee pour nous dire il faut que ñu notifier décision de justice il faut que nous yëgal ko Dina dinaa ñëw ci lan moo tax mu bëgg yéxal bobu am mais bala ma ci ñëw damay wax ne lolu amut c'est simple notification bobu amut bu ngeen démé lire article 345 Du code pénal daf né buñu la condamné pour contumace décision bi dañ koy afficher dañ koy afficher au dernier domicile

ni la dañ lay notifier lu ñu lay notifier té yow nekkoo fi nga daw tant que notifié wuñ la procureur dila la dula du la jàpp kon ne Sénégal war nañu dit bu trafiquant de drogue bu ñuy war a mu daw wala ko xam dafa ray nit bu dawé tant que notifié wuñ ko décision bi kenn du ko dem jàppi loolu c'est grave c'est indigne de ministre de la justice kon nak lolu ñu ci jaaree yeen sénégalais ngeen xamné le droit pénal ce n'est pas de la littérature constitutionnelle non c'est pas de la littérature constitutionnelle la pratique de procédure pénale, ce n'est pas la théorie à l'amphi, à l'université. Non, non. C'est différent. Ce que tu dis, tu fais, mais tu fait de bonne foi pour pouvoir dire ce que les Sénégalais vont savoir. Donc, c'est ñetti fausse nouvelle donc c'est une diffusion de fausses nouvelles et elle est punie par l'article 255 du code pénal li mu def moom mooy a ay xibaar yoo qui ne wérul la def buggoon naa nag su ma paree ci moom ñëw ci contimence nan la ñuy mën a waxee ne Sénégal koo xam ne xam nga fi mu dëkk xam nga domicile am boo ko bëggee jëli tey tey suba nga jëli ko 19h bu la neexee du fanaan këram bu fekkee sénégalais dinañ la ci bàyyi. barricade këram yow yaa koy garde léegi donc c'est Cité góor gi mooy zone bi ëpp sécurité ci Sénégal nga ne yow da nga ko condamné par contumace. article 345 boobu wax au dernier domicile du contumax moy contumace mooy koo xam ni c'est un fugitif manam dafa daw mais ko xam fi mu nek nang nga koy condamné par contumace lolu nak day interroger sénégalais ñi xam ban justice nañoo am benen bi aussi moy dama ko faté won moy ministre la justice fofu la bëggona a sax terminer ci côté ci disponibilité décision bi parce que daf ni ñaara am par rapport à l'exécution de la peine bis bu ko xasee ba notifier décision bi amna mom soit mu ñeu construire ou prisonnier su boobaa la peine sera anéantie wala procureur japp ko boobaa la peine sera anéantie wa lolu moy lan moy yow li nga atté amul njëriñ lolu moy li nga atté amul njëriñ soit dang koy dem jàppi la peine est anéantie jàppi woo procureur que euh, moom mu dem constituer prisonnier la peine sera anéantie loolu motax nak muy préparer l'opinion à une autre manipulation qu'est-ce qu'il dit il dit que juge bi kenn du ko pression moy jël temps une une décision de justice parce que ça. mom mom que je du dire. article 473 alinéa 2 Néna. décision de justice si vous ko rendre dans les 15 jours juge bi ak greffier bi dañ ko wara signer mu disponible au greffe kañ lañ rendoon décision du 1er juin tey la kañ du 16 juin. na disponible au greffe loolu la loi bi wax mais comme yow nag da ngaa soxor da ngaa créé ce dossier boo xam ne président Ousmane Sonko nee na le dossier bi sa dossier la <laughs> moo tax ko créé gis nga lim la jural moo tax mu ne la dossier bi sa dossier la moo tax jaral na la say consulat fépp ci àdduna bi ñu tëj suñuy consulat sa dossier la jaral na chaque jour nga génn di justifier wu auprès des ambassades tey nga war dem commission des droits de l'homme bu bu bu commission des affaires étrangères de union européenne def ay conférence de presse vous parce que dossier bi dossier là yaa ci dugg xamuloo noo ciy génnee moo tax nag muy préparer l'opinion à top heure bu leen pour def lu leen neex loolu sénégalais yi ñu ngi leen ciy xaar bu loolu kon ils sont tiraillés entre deux feux entre deux feux le feu judiciaire et le feu politique le feu judiciaire mooy bon nee da arrêté Ousmane Sonko la décision est anéantie en toutes ses dispositions Les nga defoon yow ndax saay mais le feu politique moi yow demal nga jéem a arrêté Ousmane Sonko bi nga ko condamné xam nga lu ci fekk boo arrêté wee xam nga lu la ciy fekkaat bu loolu weesoo nag ñu ñëw ci plainte bi nga xam ne moom la a def devant la Cour pénale internationale Nous avons encore une fois un gouvernement qui a dit que na ni pour pour sénégalais yi il roule pour d'autres intérêts ci naka dem les États-Unis nous xam les citoyens américains qui leen ñu plainte devant la Cour pénale internationale contre Joe Biden Vous xool le lendemain